dooree ba tey mën a tànk du ko a fàttali ko mhm. gis ne woykat moom sa wërsëg rek ngaa a lekk mhm. waaw lekk naa fa sama wërsëg jël naa fa sama wërsëg dem maa ngi play ak sama life band fu ne te yi dañ may comme nii niñ ma mhm. dafa mel ni rek loolu du dee feeñ ci kaw bii moo feeñ waaye am naa gars yi ñoo xamante ne ay ndaanaan lañ dañ may teral comme nii nyada nga am <laughs> no, no nan dem nee na wax ma wax ma wax ma non pas samba mudu mala ko wax en tout cas am fa am nga or waaw am fa or nyata or no am fa or mhm. waaw sama géej sagal na ma or mhm. jox nañ ma lami or mhm. sha allah jox nañ ma wali sire waaw ay sa yalla man nek generation, foog ma way ka ah kay dafa neex waaw man dama ko don dama ko don ci mam don ko ci yaay don ko ci baye maam dafay wëy suma ku jur suma pat dafay wëy ku jur yaay wëykat la mhm. kon man dama ko ci doon nekku ne dama xëy tey taxaw wëy mhm. déedéet dama ko ci dama ci juddu magee ci yaroo ci mhm. te incha allah ba ba laa yoomi diin waaw <laughs> yow xoolal lii ba ilaa yoomi diin ah, ah waaw waaw loolu la yàlla